ñu ngi sant yàlla bu baax. koor gi moom ren moom daa saf. dafa saf trop bon. yaa ngi koy sentir. bu baax. mais est-ce que woor na gis nga sama appartement yi. ma woor appartement yi waaw mais nag mais est-ce yaa ngi woor. maa ngi woor kay. mais yow ngi ko diwee ni moom normal ah. mais du dara dama xawal da nga xam am jamut mais nga jégal ma li tax ma tardé mooy dama jaaroon sama gars fii ci café gi. doon nañu ko si foofu noonu. moo tax ma xaw a tardé quoi. mais n'est-ce pas nee nga sa copain fii lay. waaw fii lay ndogoo ah, sax mu ngi ci yoon soo ko defee mu ndogoo fi ngeen ndogoo fi ay ñaar. ah ok est-ce que attan nga sama ndogu. ah bu baax sax. est-ce que attan nga ko bu baax. des fois damay ndogu nag des fois damay ndogu. des fois yii des fois dama ko yëg. mais li ngay lekk fu muy dugg. ah moo jaaxal nag moo ma yëm nag des fois kay gars yi ñu posé question mais xam nga koor la day génne lu bon lii di andi lu baax li quoi. des fois noonu lay def. mais sa rapport fàttali naa la comment il s'appelle nu mu tudd. MC. lan MC. MC donc. kooku tur bi daa gàtt. waaw léegi tur gàtt bu gudd. écoute xam nga tur dafa baax ci nit boo gisee rappeurs yi gën a siiw Sénégal seen tur dafa gudd. non mais sa tur bu guddee da ngay avancé mais bu sa tur tur dafa gàtt tur bi daa bànk. Ah, donc loolu yëpp am na suñu. yeah parce que ku ci mel ni Ngaaka Ngaaka Blindé en 97 lañ xamante ma moom moom Ngaaka rek nga tuddoon parce que moom sax maa ko jox turu Ngaaka parce que moom naan di di la tuddoon. ma ne ko naan bi baaxul ci yow tuddal ngaaka mu ma ngaaka kese ma ne ko teg ci blende diib merci beaucoup diib tuddul woon diib drop la tuddoon drop drop kooku ñu di drop bali hmm. ma ne ko yee góor boo gisee na góor la woon ma ne ko hmm. tuddal diib mënuma kese ma ne ko teg ci dundu gis muy gars yi di dund di gis suñuy fonctionné moo tax xoolal nga akaat jël seen tuñ ñu sol. mais moom mosuñu ko wane fu mu fubalee. nu mu koy wane nu mu koy wane. comme tukki na ay Europe. kii yooyu yëpp tur bi gudd. kon dama bëgg loolu noonu. bàyyam si di nga ko jàppale. mais tur bi kon foog ñu yokk ko. kon naa ko mu yokk ko. non day yokk turam. foog mu yokk ko. moom en temps moom lan lay woowee moom garab lay woowee wala aiguille wala obtus. non genre des rab loolu rek laa xam si. mais voix am. voix am neex na neex na trop sax. bravo la. Mhm. ok c'est bien kooku dina ko jàppale ah. mu ngi nii sa ñëw na. mais hmm? hmm. bàyyi teetu ngir yàlla gu mbokk mais di yow ma jàmbal da laa bàyyi place am pour ngay wër di taxawaalu wala mais dama ngay jàmbal ko ci ñebe ji. bébé loolu kër jàmbur yi man ah. dem. bébé ça va Jackson. waaw. <laughs> léegi bàyyi nga décortiquer. Mhm. léegi le producteur. non non kii dafa jaaxal du ma producteur de <laughs> bokkul quoi am producteur soble mbay la. soble mbay am na kay xam nga kii ngaaka mi doon hmm. moom ngaaka yenn côté soble la quoi. moom diw yëpp ay yenn kër soldal maa leen produire. laay produire sa soble si ñu koy ñu koy partagé. di ko yóbbu ay Lompoul ak ay Guet Sèye rek ay Cukuñ ak ay kii yooyu noonu ay Cogmaat ak xonq yooyu. Hmm. moom dëkk yooyu lañ koy yóbbu. très hmm. di seetaan sax nga jël bi. kii kii maa ngi si. yow surtout kii bàyyi maa ngi em si ma mère bul dof léegi topp ma ci miir wisi ba mu kii ci ndambe gi bàyyi ko léegi sama biir kër sama sama secteur ngay dugg. kon damaa def fóore quoi. nee na yaa ko yokk yaa ko yokk yokkatu moo yokk yokk. bàyyi gi léegi. Hmm. yaa ngi man man bàyyi nga man ngay produit man. bàyyi di ma producteur producteur soble mbay laa. kon bi kon kon